Diaw bokkoon ci ñi naan détenu euh, politique ñu jàppoon ko le premier juin ginnaaw manifestation yi nga xamante ne amoon na ci euh, bés boobu ginnaaw loolu nag mu trouvé li nga xamante ne moo di liberté am tey nag mu ñëw fas yéene waxtaan ak ñun Mohamed nuyu naa la. Thioro maa mhm. mhm. mhm. doon ñëwaatal ci niñ la yan anam lan la jàppee lan nga ñuy wax Mohamed. waaw man jour le premier juin manifestation bi amoon xëy naa di commencé ba 12 h yooyu ma dégg affaire ngi manifester. foo doon liggéeyee. Euh, police parcelle. Euh, moo wàcc ma ne comme ma ne côté ak affaire comme na xarit marché 14. xaar ma dem foofu ba affaire sedd ma ñibi pour man du du jël temps ma wàcc daw dugg foofu foofu laa nekk ba côté 17h fekk moom man la xëyoon na ma woo ko mu ne ma ñibbi si nag yomb ma parce que dama daw ni sax ak sama oto am fu ma nekk mhm. mais demal madame mu ngi fi ma ne ko mën kay maa fi mhm. du foofu madame defal añ añ ataaya toog ba ay 17h ñëwul ma ne du respect ma toog fii rek muy bëgg a guddi bal ma génn bi and ak sama benen xarit mohammed ak Fallou ànd bi ñi ñibbi ci yoon bi dox ni normal bobu sa manifestation fi ñun fi ñu jaaroon amuloon affaire dañu toog gis benn auto police ñew taxaw suñu kanam japp ñu ni dañu man comme si que dañ leen toppoon. waaw xamna ñun dañu seen ay groupe bu dox rek. Mhm. trois personnes deux bu dox rek dañ lay arrêter yeen ñet ñep leen jappando waaw ñun ñet ñep leen jappando d'accord après loolu ñu duggal leen ci biir oto bi mu nekkoon yenn genre condition avec yéen ak policiers yi. waaw torture xam naa ne loolu laay njëkk a wax. Mhm. à ma grande surprise man bi mu leen gisee ñu taxaw sama kanam am na si kenn si ñun ku doon wala jéem nañ sax daw lay wax mën naa ne mën naa si boole sa bopp ñun ñu jéem a daw parce que da ngay tiit. da ngay tiit d'accord. Euh, seen affaire yooyu nga xam ne bu booy di sànni xeer moom la ñuy baaree. man mom lañ la dóor ci bu ci jë mom lañ la dóor ci jë wa ma daanu ñu tim ma di ma sen dal yu yooyu di la lan di ma dóor seen dàll di ma weex après dañ ma biñ may duggal ci auto bi tamit kenn da japp fi xam nga man nit ku ndaw laa mhm. kenn japp fe ñu ñëw rek dem ba jup auto bi rek sanni ma ci biir dan la tëmbal ci biir auto bi comme ni ñuy def xaar d'accord yow ak say morom wala yow kasse man ak samay morom mais man biñ ma jappé parce que ñoom néna la xawna ñu bousé mën na né ñu ngi doon jéem ndaw mais man parfois bu tité deug duma mëna déplacer wu dama taxaw sëriñ ma door loolu ma daanu mais biñ ma jàppee li ñu ñëk ñëw sama xel mooy ñee moom yàlla buñ leen téye man moo njëkk a ñëw sama xel mais dama toog gis la ñu mënoote leen di andi gis seen gémmiñ ñaa toj ma xamné door dóor nañ leen mais man ki ma jàpp dañ xamanté man ak moom ki la japp bokkoon na ci ñi la doon door non moom nag dóoruma wax deug yalla mais ñi mu andal ñoo ma doon door d'accord parce que mom hmm waxtaan nañ tuuti sax mu ne ma lan mo duggal ci man ko yow sax xam nga man du manifestant duma def kat bo ma gisee ni xam duma def duma manifestant euh mané ko ani diw mu ne moom mu ngi darfu mu ne ko bi muy dem de wax na mako mais xawmu ndax ñu gisee ko tu tuddaat ko keneen mun ma ko léegi mu commissariat bu Kaolack ma koy tooñ naa ko daf maa bàyyi xam naa daa ko ci yóbbante fóot mais malgré nga ne ko doo def kat mais terewul yeneen naataangoom yi ñu ngi continuer di la torturer wala fa lañ yem ma ne biñ commencé di waxtaan keneen ki mooma mbéj na ma nangam man ndeyam fii di ñuy xàmmale boo amu fi moom itamit ma gis mu changé nangatul wax ak man waaw après si ñu commencé di dóor bi ñuy dóor mais bu ñu taxawee benn jamono gis yóbbu nañ ñi foo xam ne xam naa booyi foofu dañu manifester parce que man fi ma fi ñu tëdd ci oto bi xeer yi ñu ngi dal ci auto bi ay xeer yu mag wóor na bu ci rëcc ba dugg ci auto bi yow da ngay dee ay xeer yu mag lañ koy dóor ci auto bi xam nga ak manifestation yi mais yow da ngay dem ba da ngay ne yaa ngi ci loxoy police yi mais da nga naan xeer yi yàlla bu moo fekk parce que xeer yooyu maar de taali bu la dalee. malgré que policiers yi ngeen nekkaloon protégé wuñ leen. parce que ñu continué woon di leen doon ñoom ñu ngi wàcc di jël seen maa ngi gis ay siwo yoo xam ne ay lacromogène la def. Mhm. kenn moo fa taxaw taxaw ni di dóor. des fois ñu dóor la ba mu jeex buñ dóoree ba mu jeex bu ñuy chargé ñu la koy dóor te te damuy chargé waat. bu ñuy chargé dan lañ lay dóor. taatu seen arme yu ñuy dóoree lacrymogène ñu la koy dóor parfois ñu dóor la ko mu toj parfois man nag dama amuñ amoon chance xaw ma ñàkk chance sama mbagg lañ ko doon dóor. d'accord parce que yaa leen féete woon côté boobu. waaw d'accord torture yi fa la yemoon wala continuer woon nañ ci biir oto bi di la torturer la ci yeneen anam. ñun dañu dóor ba ñu bi ñu yeggee bi ñuy wàccee si bunt bi ñuy dugal ci biir fekk am ñu taxaw foofu da ngay gis ku ñëw mbéj keneen ki ñëw mbéj dóor dóoru métti ba nit ñi dugalee ci violon yi am na ñoo xam dañoo demoon xam naa ñu bokkul ak ñi jàpp feneen lañ demoon ñëw na kon doomu xaraam yi ngeen jàpp ñu ne dugg ci biir dóor mbéj mbéj tël tël tël doyal génn. mbaa gaañuñu la ci benn côté ci sa yaram wala. si gaañ nañ ma. Euh, parce que kim lay wax ni la wante nañ ma mom kim la wax naa fi li ñi xamé wante amu fi mu yoron ben monot bo xamné ne bi la ma doon jam ci loxo comme kuy gas ben genre pax di jam ni muy dag wala wa mu def turu ben mhm. dara di di wacc mhm. mais bobu sa yaram day tang bo ci après man gañu gañu bu ndaw la ko jëlone mhm. biñ ñëwé ci violon yi da ngay gis ku ñëw ne kan moo nàccagul xool gisuñ ci yow naaj ñu jël lacrymogène bi dóor ko ci bopp toj nga gis ñu def ko ay nit yoo xamante ne jàppandoo woon nañ leen ak yow waaw sama benn waay Balla maa ngi koy nuyuwaale mm. bu sam moomu ci gënoon ni marqué parce que euh, dañ ko doon ñaw moom bi affaire blessure bi dafa doy waar ñu dem am fuñ jëli yaakaar naa hôpital Ma Abdou lañ ko jëlee yaakaar naa ko bu baax ne foofu lañ ko jëlee. Hmm. ñu ñëwee mu jël puso ak kii di seen caas di ñëw bopp booy ci guddi gi. docteur la. waaw docteur la. d'accord. te li ma jaaxal gisuma fu ñu leen piqûre. maanaam da nga jàpp ni dañ ko ñëw ak blessure bi sans anesthésie ñu ñaw ñawal ko ko. ñawal ko ko ñu ñawal ko ko. Hmm. bàll bi ñuy yóbbu ak ñoom seeku booyu seeku moom itamit noonu lañ ko def ñawal ko. mais bi ñuy yóbbu feene euh, bi ñuy defaree tribunal fekk na booba Balla mëntuma koon xool gis naa fa benn waaye bu ñuy wax Dieng daanaka ngeen bëgguma sax di tudd tur mais il faut nga tudd ñu xam ne li ngay wax ne danga ko xam Dieng dañ ko torturé ba man dama def woon ne bët bi dafa génn dafa tuuru parce bët yi fii lañ ñëwoon rouge Dieng su ma xoolee sax damay sëgg parce mënuma koon xool mais kooku gars yi ñi mu ko ñi mu ko présenté mu tribunal nag kii dañ ko yóbbu kaso moom bokkul woon si ñun defeere foofu lañ ko téye dégg naa ba après. parce que dóor yi ñu ko door peut-être lañ doon nëbb. moo tax bëgg na ko ñemuñ ko woon defeere kooku kenn xalaatu ko parce que bëri dafa yàqu moom complètement mm-hmm. bëri yëpp yàqu ñu jël ko indi foofu bàyyi ko fo ñun ñu defeere ñi parce que ñun téye nañu 4 jours jeudi vendredi samedi dimanche. ba lëndi ñu soog ñu defeere d'accord que man sax benn jamono bëggoon naa ñu defeere lu tax loolu bon li ko waral mooy fan yooyu boo xool juin événement yaa fa def na def na soixante douze heures mhm. def na trois jours mhm. jeudi vendredi ba samedi bi booy ñu doon xeex mhm. mais dangay gis ñoom mer bi ñu amee ci biti ak coono bi xam nga yombul nag waaw nag d' accord maire bi nga xamante ne dañu jëlee ci biti te manifestant di leen ko teg. Mhm. ñoom bu ñu ñëwee da jàpp ni dañuy ñëw xëpp ko ci seen kaw kaw effectivement noonu la demee. Mhm. ñëw des fois ñu ñëw nekk am na boo xam ne du ma ko fàtte mukk dañuy ñëw nekk ñaar wala ñett euh, ñëw toogloo ñu ni biir. Mhm. kenn ki ne nangam leen dem ngeen jóg. taxaw keneen keneen kan moo leen taxaw nangam leen dem te ñaar ñi ko wax kenn ngi taxaw ni kenn ngi taxaw ni kan moo leen taxaw nangam leen dem toog ñu toog mouvement boobu la ñuy jàppe ba sa tànk yi dootul mën dara mm-hmm. en plus boobu weñ bi ma doon jam sama loxo maa ngi centré sama loxo mi ngi commencé di métti xam naa ndox bi ñu doon tuur ak affaire yooyu ci 4 jours yooyu moo infecté woon nga amone ay blessures yo xamantene dans wu manou yi nga waxone mom lañ la ko doon euh, jam. Mm-hmm. mo la ko def en de ça nga ci lool ñu la ci ndox euh suma dina sûrement infecté autant pour moi. Mm-hmm. après est-ce que tu nga demandé ñom ñi nga xamantene ñoo la tek lool wala bok ñi nga xamantene ya doon gis ñuy def torture nga demandé len askan yow da nga bëgg waaw xam nga nit la comporter ak yow. Mm-hmm. di nga communiquer ak mom am lu muy comporter ak yow doo ñemee communiquer ak moom parce que boo amee loo bëgg sax bu la nit nga ne ko chef bu la yuuxu lan la kooku dootu ko ñemee wax ak moom mm-hmm. raar na ci nga gis kenn ku nangu ñëw ak yow taxaw déglu la amoon na ci kenn bëgguma sax tudd turam mais dama koy moom au moins daan na ñëw déglu la nga wax ko mu ne ah dëgg yàlla man de su ma am am naa yéene bi waaye xam nga rek ñun fii amuñ fii parce que ñëpp du ñu yem. waaw ñëpp yemuñ fi niveau ñun lii rek lañ mën. Hmm. waaye wax dëgg yàlla su ma sañoon lii ak lii daan na waxtaan ak yow déglu la ku am hmm. yërmande daal. Hmm. mais ñi si des moom du nangoo déglu boo ci kenn da lay di jël ay kàddu yu ñaaw di la ko teg. ba pare continuer torture bi. torture bi di la torturer. ba kaña. Oh, bon ba ba lundi parce que 4 jours lañ def foo violon. lu defee quatre jours vélo am na ñoo xam ne seen famille ñëwoon nañ pour ñaan ñu ne leen amul problème ñoom ñëpp nañ leen bàyyi lundi huit heures amul benn problème yéen comme vendredi lañ leen lañ fi ñëw ñii samedi ñu leen noonu booy xam naa weekend bi moo tax mais lundi moom incha allah ñoom ñëpp huit heures nañ leen bàyyi. famille yi gëm loolu ñibbi seen kër six heures du matin ñu defee rek. mu dekk désespoir boo xamante ne dund ngeen ko foofu. ak ñoom waa famille bi sax. parce que ñun duñ wax nañ leen bàyyi mais famille bi lañ wax ne ñoom ñëpp nañ leen bàyyi. léegi duñ leen ko wax ñoom itam ñu dem seen tëdd seen kër yi jafe ne lundi dañuy xëy jël si ñu. Mhm. ñu ñëw ñu naan booy de malheureusement commissaire bi da leen différé doo am doo xam ani commissaire doo am accès si kenn poste ngay ñëw la ñu naan booy de différé nañ leen point mhm. ñu ngi tribunal. ginnaaw ñu loolu ñu defeere la xëy nga dund leneen lan loo xam ne marqué na la peut-être foofu noonu ci Euh, waaw bi may bi ma nekkee ci violon dama def woon ne bu ñu ma yóbbu tribunal ak sama blessure yi commencé naa dina commencé dinaa am jàmm parce que fee bëggatuma foon toog. mais est-ce tamit euh, demoon nga ba wone blessure yi parce que yaa ngi doon wax ni ñële dañ la daan nañu toll ci torture bi daan na toll foo xamante ne yow doo sax ñeme wax leen que ni yow lii ngay dund ci sa état de santé. Euh, waxuma leen ko. Mhm. nee naa la déggoo ma ne la ñoom duñ la may kanam boo xam ne. Mhm. soo nekkoon ci sukkuraat sax duñ la dimbali ba ngay demee tribunal kenn xamul ni am nga ay blessure xamul ne ñi ma nekkal ci violon ñoo xam ne am naa blessure. Mm-hmm. Euh, te violon yi tamit dañuy sóoraal ne ay nit lañ fay dugal nga dugal nit ci violon du mat quinze seize wala dix huit personnes nekk foofu wala dix sept toilette bi fa nekk ci biir la nekk amul dara loo xam ne amul porte wala dara loo suturloo te euh, nit ñi ñëpp yemuñ loolu it wax dëgg yàlla jàppoon naa ci sama ci sama àddina ne loolu nit du ko def parce que am na ñoo xam ne nitu kersa lañ am ñoo xam ne seen yoon newu ci mën a dugg noonu toog dara leen déranger am ñoo nitu kersa lañ benn nit rek boo leen nekkee am na soo xam doo ko mën wax ma laak ay quinze seize personnes nga nekk ci benn chambre toilette bi amul porte amul dara amaana yow mënoon mënoon nga bokk ci nitu kersa yi est-ce que jotoon na laa dal nga amoon benn besoin boo bëggoon satisfaire mm-hmm. boo xamante ne bëggoon nga ko def ci toilette yooyu malgré que amul buntu et tout ça et bu amee nan nga ko nan nga ko defee en fait. effectivement euh, dañ mujj ñu ne nañu def benn affaire mooy man nitu kersa laa loolu mooy yàlla bëri naa coow nag mais nitu kersa laa. Mm-hmm. loolu sax mën naa ne xalaat bi ci man mi la jóge woon. Mm-hmm. mais tamit doo nekk à mooy. bu kenn nekk ci biir toilette bi kenn muy summi tisetam bu sol taxaw def nii nëbbu ko wan la ginnaaw ba pare def nii nëbbu d'accord waxuma doo suur sa bopp mais taxaw tiim la sax dëgg yàlla tey taxaw tiim la mais amul opportunité taxaw ci bunt bi wala boog peut-être ñaari de taxaw nëbb la wala genre non non moom même bu taxawee du la wan kanam mais da wan ginnaaw mm. imaginer nga nekk ci toilette nit taxaw tiim la la ginnaaw yor tiset pour nëbbal la benn quinze wala seize personnes yi nga xam ne ñu ngi toog jàkkaarloo ak yow. Mhm. doo nekk à yaa am initiative boobu mais yow aussi mës nga ko dund. bien defal naa ko nit ba tàyyi. yow aussi defal na la ko. waaw d'accord defal nañ ma ko defal naa ko nit. Mhm. waaw moment boobu ma xalaat ne lii du dund gor man même bu ñu may yóbbu tribunal sax moo ma gënal. parce que fii mënutuma fi woon toog. d'accord lundi. matee ay 6 heures ñu yéñi xaw ma sax jël si parce que do am pour nelaw ñëw dóor dóor ñu dóor yu métti. dóor ci yeen condition da ngeen ñu bëggone ray ay dëmm ngeen nangam jarul li wax wax yu ñaaw. ñu ne lan jarul lan. comme par exemple nangamu aji ñu baal ma aji sa nangam bu mbé sax bu ngeen ko tegaloon sur le plat. Mhm. jarul lii. Mhm. vas-y. ay dëmm ngeen bëggoon a rey manifestation yi nangam yéen moomu leen réew mi seen bàyyi moomu réew mi bu ngeen ñu jekkoo da ngeen ñu rey moo tax kuñ si jekku dañ leen nangam sa ndey parce que pour ñoom ñun pour booy bu ñu manifesté wu parfois ñu xeex ak policiers yi waaw loolu la wax nag di leen jekkoo ci lan lañ doon sukkandiku naan leen bu ngeen ñu jekkoo dañ leen rey parce que foofu aussi day mel ni benn haine bu ñu leen dencaloon. boo xamante ne gis nañu ki nga xamante ne mënoon na taxaw pour euh, faat seen bakkan ñu am ñu am ko à disposition moo waraloon loolu. waaw xam naa xam nga nag euh, manifestant yi parfois nga dégg ñu ne boo yaa ngi dóor policiers yi wala am na policiers yi bu ñu blessé yow bu ñu la même bu ñu la même boo bokkoo ci manifestation bu ñu la si jàppee ñoom loolu lañ lay. dañu la stigmatiser la waaw yow. tu manifestant donc yow boo ñu jàppoon dañ ñu ko dañ ñuy dañ ñuy gaañ wala dañ ñuy rey comme ñu ñoo la jàpp nag loolu lañ lay def te yow sa yoon néew ci manifestation. Mm-hmm. te bu boobaa yéen fi ngeen di nekk mu mënu leen àddu mënu leen riposter mënu leen def dara. est que amoon na ko si jotoon jéem a riposter naan bokkuma ci wala muy jéema fajal boppam foofu noonu bañ leen di teg yooyu lay torture. Euh, kenn kenn laa ci gis koo xam ne biñ ko fi indi xam naa xolam neexul moom itam da doon ñibbi mais ñëpp du xol. Mm-hmm. mu leen defuma dara ba ngeen may indi fii coow ñoom waa ji na ko toogal mu ne ko noonu lay toogee defuma dara ba may bàyyi ma ñibbi waa ji mbéj ko mu ne ko bul ma dóoraat beneen gain bi jël lakaramasam bi bu dóoree ci bopp dama comme boo rendee benn xar deret ji ni muy def noonu la noonu la deret def tuur foofu ñun ñëpp taxal ñu sax mu tiit deret ji fees del foofu mu tiit toog waaye jël kii bi sobere ko ñoo fu nekk noonu fi yoon mais moom i tamit gaa yóbbuñ ko woon defeere ko woon dañ ko fa bàyyi woon parce que comme tout à l'heure yaa ngi wax am na koo xam ne dañ koo torturé woon ba bët yi def noonu euh, ñu bàyyi ko fa léegi kenn ki nga xamante ne moom la ñu moom la ñu dóoraat lacrymogène bi deret bi wër leen ñu bàyyi ko fa mu mel ni ñoom kon li ñuy def dañ koy masqué wala boog dañ koy nëbb pour mu bañ a egg ci benn niveau bi foofu waaw mhm. parce que man sama loxo yi fi mu amoon ay blessure mhm. xam naa ne man nëbb naa leen ko sax parce que dama doon xalaat ma ne ñii est bu ñu ko xamee lu ñu nekk di ma ci dóor wala ñu ngi koy bës pour muy gën a métti. d'accord même ne waa ci daf ma si ba néew yi mais bëgguma ñu xam xarit yi ma nekkal moom xam na ko. parce que en bi en bi kon demoon na ba toll ci yaw donte que yow yaa ngi am métit mais da ragal woon leen ko pour ñu bañ a sukkandiku ci métit boobu dala ci gën a gaañ. gën a gaañ loolu laa doon daw. d'accord te mënoon na ci am sax. ginnaaw loolu après nga dem euh, fee ca Euh, prison ba lan nga fa lan nga fa lan nga fa dund ak yan condition nga fa fekk fof wa bi ma jógee foofu bu ñu yobbu tribunal defo na moy tane mais comme ñom sen chambre yoyu ñom tamit xatna trop xat bo xamne ne lu ñu don téye parce que ay 200 personnes ci ben chambre mhm. jour bi ñi ñëk yobbu fof fof foofu lañ nekk ba 1h du matin ñu ne até ñu da ngeen def retour de parquet mhm. ñu keroog moom bokk na ci li gëna marqué moy biñ ñi jël ci parquet di yóbbu gendarmerie Foire fee astafur la Wakaam. li ma gën a marqué mooy ñi ma jël si man ma ak sama gars parce que tribunal dossier collectif la maanaam bu ñu la jàppee yow kase dañ lay boole vingt quinze personne ñu ne yéen ñii lañ jàppandoo. comme kuñ jàppee. dañ koy def par say quoi par groupe parcelle kii mhm. Grand Yoff. d'accord ñëw ñu leen dajalee. ñu boole leen même dossier ñii lañ jàppee parcelle. d'accord boobu leen benn dossier yow loo mënoo ma génne yow. Mhm. ak loo loo ma mën a jàppale mënoo ma génne man kase parce que dossier collectif lañ koy def. d'accord léegi bi ñu jël say foofu man ñooñu télé rek laa leen di xaw ma ay bib lañ xaw ma GIGN xaw ma waa gendarmerie ay kagul nit ñoo xam ne doo leen sax boo leen daje woon doo leen ñeme xool. Mhm. yor seen i arme la. man dama ne lan laa def ba mérito lii maa ngi am benn maire ndeysaan dañoo génn mu xool nii rek daanu waaw vraiment mu nekkoon affaire boo xam ne mosuma xalaat suma dundu ne dinaa jaar ci lu ñi ma xam-xam xam ne du ma mais lan lan lan nga yëg moment boobu parce que yow yaa ngi jàpp ni man dama doon ñibbi. Mhm. ñu jël ma jàpp ma boole ma ñoo xamante ne daanaka sax mën naa ne ci ay film rek laa leen doon gis mhm. ñu war ma jël war ma yóbbu loolu lan nga lan nga ko dundee en fait. Euh, ci sa propre conscience. waaw jaxasoo parce que xalaatuma woon ne lu mel noonu dina mos a am ci sama dund man yu mel noonu sax da nga daan toog genre nit ñooñu manifestation yi nga leen daan gis seen oto yu noir yi nga xam ñu ne ñooy ñooy bib wala ñooy ñooy GIGN nga toog ba ñu ñëw tiim la yor seen arme seen bët rek ngay gis duñ wax duñ def dara dugal la ci oto xamuloo foo nekk gisuloo oto bi doo gis dara.

que nit laa koo xam ne xaw naa miin Dakar tuuti ma ne Mouhamed fee lañ jëm Wakaam parce que tenu suma jun maa ngi wax te xool sama bët nii gis naa benn taw corniche bi xame naa ko mm-hmm. benn tur ndaw di xool sa bët xam ne fii la ñu ñëw foofu am ay nit ñu baax ñoo xam ne xamuñ ñu ñëw am na ñoo xam benn restaurant bu mag bu nekkoon foofu mm-hmm. commandé fa ay reer yu bari dugg ko mais doo ko sax mën lekk après nga jóge foofu ñu yóbbu la ci prison ba nga dund fa lan. waaw bi ma nga baal ma rek bi ñu ñibbisiwaatee la lendemain fekk na boobu sama blessure yi infecté na ba sonal na ma. <laughs> Euh, am na ak ñoo xam ne dañ leen gaañoon ci manifestation yi ñii xam naa gaañoo leen torturé ma profité ci loolu di nuyuwaale sëñ Baara Ndiaye. koo xam ne daf ma mos a jàppale. ci mbir mooy courage. tool yi nag day fois mu bëri sëñ Baara nii sëñ Baara. mais ku jàmbaar la parce que dama ko dund ak moom benn soixante-douze heures euh, dégg naa ko ci benn interview mu ni am na ci benn booy defoo naa loxo yi dina yàqu. yow la doon waxal. man la doon waxal. parce que boobu sama loxo yi mënutuma ci def dara dama daan toog ba ci kanam ma sant ni mu ngi fees ak deret walla tëtt boobu dama koy wiñaar nii teg mu mel ni robinet parce que tur yi dafa xootoon ci biir après mu infecté. médecin bi ñu doon faj man moom ak benn waaye bi ma lay wax ni moom lañ doon ñaw bopp bi Balla gay mm-hmm. ñoo bokkoon benn médecin bu ñuy faj ak keneen koo xam ne xam naa du rafet mais il faut nga wax ko mm-hmm. bi ngi gars yi jàppee ñaari toogukaayam dañ ko dagg dagg comme nan waaw loolu moom sama bët bi moom ko may maa fekkee dagg jël xamul ñu ko daggee xamu ban arme dañ ko dagg waa ji mënul mënul toog day wàccee caleçon ba nii mu sukk

parce que man sama xol dafa gaaw te mënuma gis nit kuy joy moo mhm. gisee bàll bët yaa ngi commencé ni rongo ñi di wàcc foofu tamit man ma nekk nit ku faible commencé sama bët yi commencé di wàcc waaw mais ma defe ne yooyu yëpp xañ na buñ demee kanam juge bi dinañ ñu bàyyi biñ demee si kanam juge bi ñu bàyyi ni ñu ap ap apakoon ñu amaa retour de parquet buñ jógee ko wakaam ñu dem belleer buñ demee belleer moom it

comme ni la sa yaay juré woon yaramu nen yaramu nen amul mak amul xalé ko xamné man na la papa sax day dañ koy euh bon ñëw su jonkonal nga jonkon ne ne la ŋaaŋal nga ŋaaŋ waneel ginnaw nga wane ginnaaw nga seug ma nek mu nekkon lo xamné ne mosuma xalaat né lu am la noo ko dundé en tant que warma bi nga xamantene warna am ci doomu adama sama biir wax ma lay wax man la man nitu kersa laa. Mhm. ki ma ko doon def man la wér na ne man maa ko mag xale la. Mhm. bi ma ne sumeekul dama sumi sama tibéy munuma sumi watal sa tibéy bu ndaw man def nii munuma bu ma sumil mais pour lolu taxaw na fa diko xol parce que mënuma ko won mako xol mu may xol mu yoxuma do parce que fi fi nga ñëw nii xamuloo ko nga xam ne carrément fii mooy cent ñëw nga foo xam ne xamuloo ko nga sumeeku ñu xool leen solaat leen ngeen solaat ñu tas leen ci chambre yi biir fii waaw yow demal fii demal fii ku nekk ak ki lay si yóbbu nga nekk mais man maag sama ñooñu comme gars yi bu ñu xamee ne da ngeen ànd dañ leen di tas mais ci biir tas ma amaat sensu ñi ñu ma jàppaloon door ci commissariat bi ñu bokkaat beneen chambre xam ne foofu yàlla rek mooy Karim te bëgguñ woon loolu lu la gën a marqué ci chambre bi li ma gën a marqué mooy bi ma duggee ci chambre bi chambre 3 man foofu la rentré bi ma duggee chambre 3 ñu ubbi chambre bi bi ma dajal bi may dugg ci chambre bi mënuma koon imaginer chambre bi coow li lu coow maar détaillé daal loolu moom bëgguma ñaan ma yàlla sax nit ku ko ku xam loolu bëgguma coow li bari buñ duggee toog taxaw doo xam foo jëm que ku nekk yaa ngi toog fi nga toog mu fees dell ñii ngi taxaw doo gis benn espace boo mën a toog ñu dem chef de chambre ne kaay leen ñu ñëw mu ne ñu néeg bi nii lay doxee lii la def lii ak lii ak lii man maay chef de chambre diw diw diw diw ñee ne ñooy homme de chambre li ñu ci néeg bi loolu mooy am toilette baa nga ne lii mooy priorité sangu euh, tour ndox mooy priorité sangu topp dem toilette topp waaw fekk maa ngi takkoon sama benn jaar bu sori ci mm-hmm. ma tajaar bi tekk ko jox ma ko waaye. force. waaw mais xam naa nag nekkul woon force. mais comme xamoo kaso te genre nit ñooñu su ma dajee woon ak ñoom ci mbedd sax suñ ma jubee mën naa guñeeku. tellement que dafa nekkoon ci anam bu doy. xam ne ma nit ñu indis. Mhm. ñu baal ma ñoom doo ko bëggee waxee noonu mais noonu lay demee. Mhm. nit ñoo xam ne seen kanam yi maar day taal. est li nga dund marqué la psychologiquement. bon bima fa nekké nak des fois dan na ma bima guéné sax ci la mo gën sonal hmm. man nit ni mënuma wax né mature na mais dama gis ño xamné ay xalé lañ ño xamné waru ñu leen bol ak ak genre nit ñoo ñu leen di influencer. parce que bu ñu en plus mën na leen ki day dafa am ku ma mos wax né ma problème lan la indé yow wala si manifestant yi nga ma ko waaw mu ma am nga dara ko am dara comme ma ci Auchan yeek yooyu ma ne ko man rus naa sax dem ci bu maanaam ma ne ko su ma doxoon ba force ak kalpe yow mm. dinaa fexe ba nga jot ci mm. du ma lekk lu ma lewul ma ab maa tax dem mënuma waa loolu ngeen di def di jaay gëm yàlla ñëw nga jeel di nga tëdd sa kasoo de man ma événement yi bu ma fekkoon ci biti damay riche ma ne ko man du ma lekk lu ma lewul du ma jël lu jàmbur wax ma te dem daje ay Auchan ma ne ko man dépassé naa foofu mm. indi nañ ma nag kaso accidentellement ñëw naa kaso mais du ma jël alalu jàmbur. Mm-hmm. lan moo la gën a marqué ci biir foofu noonu. ak côté lekk bi aussi pour ñu ja jeexalee foofu noonu yan condition ngeen daan lekkee. waaw lekk bi euh, dafa am benn seen benn lekk bu ñuy wax janga lekk boobu xam naa ne man keroog laa koy mos a gis keroog laa ko mos a dégg. Mm-hmm. xam naa daal ceeb lañ ko defaree moom lekk bi bu dee añ bi la euh, ceeb bi tey boo ko téewoon sa loxo boo ko dóoree ci miir bi du wàcc. Mm-hmm. dafay des. que day collé même boko ko lekkee kuddu bu sédé ci kuddu bi sax pour nga raxas ko problème la buñ ko indé mënu mako won lekk li jitu lool premier jour bi ma yéwo dañ ma jox benn pain bo xamné pain bu doy war na ma lii sa mburu reer la ñu mako jox 7 h du matin na ma sa mburu reer la man comprendre moom ma laaj ki ma leen dal mun ma eh, bàyyi sa dof dof lu bi nee na sa mburu reer la mhm. boobu maa ngi xiif parce que toog naa vingt quatre heures mu lekk ma ma mhm. boole ñaari mburu yi lekk ko heure boobu bi mu jotee bi gars dugalee bool yi añ yi ci biir euh, chambre bi bu ñu ubbee bool yi yow fi nga toog foofu la xeñ bi di fekk mhm. bëggoon nañ xam aussi balaa ñu tëj jotaay bi yan yan gàllankoor la la la prison jural ci sa vie en général ak lu la ci gën a ak looy gën a regretter ci loolu nga xamante ne moo di sa arrestation pour ñu tëjaale fa jotaay bi. waaw xam naa li ma ci gën a marqué moom lu ma dund loo xam ne loolu ci biir kaso bi euh, muy ay maltraité yu ñu leen def foofu mais li nga xam ne moom yàqule nañ ko loolu dañ koy sante suñu borom parce que mënoon nañ ci ñàkk suñu bakkan parce que parfois nga dégg ne nit rey nañ ko ci manifestation yi te deful woon dara waaw mënoon nañu dal mais. Ya, bien vrai que yaaxul nañ ci ay alal du bari suñ lu bari wax na relation yi ñu ci amone ak yenn comme ñun commerce lañu def yenn partenaire yi avant ñu ñëwul wala avant ñuy xam ci luñ nekk ñoom itam dem nañ ut benen fournisseur yoy itam mu nekk yenen affaire yo xamne sama biir famille mom bon mën naa ne sant yàlla daal lu changé wul donte du ñàkk loo xam ne lim la fekk ci biir moo tax mu demee noonu mais bu la fekkoon ci biti du demee noonu amul woon benn opportunité bo boo xamante ne yaa ngi ko doon lijjanti loolu ñëw def ko gàllankoor. bien sûr xam naa ni fii laa koy waxee parce que man bi ñu may jàpp maa ngi waroon voyager le 26 juin malheureusement le 26 juin boobu ci kaso bi la ma fekk ma def ay weer bi may génnee fekk naa yu si bëri yàqu na parce que maa ngi jotoon sama yi ma doon réservé yëpp maa ngi ko jotoon le 31 le premier ñu arrêté ma le 26 boobu départ bi. maa waroon dem ci kaso bi la ma fekk. mu doon naqar bu metti waaw mais sant yàlla la rek. mu doon metti mais léegi daanaka boo koy xool da ngay santaat suñu borom parce que sa bakkar moom na ci des. est-ce que tey jii bu manifestation amaatoon di nga bokk si ñu koy ñu koy ñi ñuy dem wala bokk sax ñuy génn ci mbedd bi parce que nee nga lim la xañ dafa bëri. non bu fekkoon nit ki eh, bu fekkee loolu day nekk jëfam dama si déglu ay booy dégg naa si benn xale ñu laaj ko ndax.

ñii di denc nit ñi ci condition yi ñu leen di dencee te defuñu dara ak ñi nga xam ne bàyyi nga leen fee prison te bëggoon nga aussi ñu génn. waaw man su ma sañoon juge yi wala yenn juge yi sax lay wax wala yu ci ëpp ñoom bu ma sañoon Sénégal nañ di def ku am sa diplôme ba war ñu ne kii juge la war a doon ñu mos a sa kaso trois mois su boobaa balaa ngay def signalooti kenn mandat dépôt pour moom dina dem ba xam kii lañ lay fekki foofu. maanaam du nit koo jot rek musuñu signé mandat de parce que nit a ngi dem ak prison feebar gis naa ci sama benn booy ndeysaan fan yi la génn bi ma ko gisee ndiggam bi da doon métti man daan naa ko jàppale mais ndeke bi mu génnee lundi bi passé la def rajo def na 10 mois sans pour 10 ndeke yàqu ndigg bi moo fettoon léegi mënutul yaram bi mënutul dox normal mais day sëgg comme mag te xale la. te xale la morom la hmm. wala man naa ko mag. d'accord. donc su ma amee li may kii daal mooy ñu dawal tuuti yërmande suñ bokk takk der yi tamit ñu wàññi dóor yi parce am na loo xam ne nitu léegi àttanatuñ ko parce que jamono léegi kenn wérul ngay dóor nit maltraité ko mu dem feene surtout nga dóor nit au bout de trois mois ñu ne kooku deful dara toppewuñ ko dara ñu bàyyi ko mu dem ñu bàyyi la nga ñibbi mhm. du am xaalis te yow ci nga bokk defe na waaw da ngay génn sax da gis boo yoo xam ne dañuy toog ci bunt bi amul paas am na yoo xam ne gor mënu ko dem di tàllal léegi bu baax nag ñoo xam ne ñu ci bind prison bi bu nga xamee yow da nga génn détenu ko génne benn dix mille foo jëm Sénégal ñu may la nga dem. Mhm. boo génnee nga après boo génnee après di nga feebar par force parce que kaso moo mel noonu. environnement bi baaxul. Mhm. ndox bi ngay naan si toilette bi la nekk ndox bi ngay jëfandikoo si toilette bi la nekk ñi mhm. day dugg dem toilette yow nga mën a naan toog di ko xaar mu dem toilette bu pare nga ñëw sëgg ci robinet boobu naan. mu doon lu doy loo xamante ne aussi dund nga ko te am na ñeneen ñu continuer di ko uh, dund di leen ñaanal yàlla yal na leen fa yàlla génne ba du ñu defatil dara loo xamante ne rek mën na leen fa uh, delloo mu ngi noonu mbokk internet ci li leen leen indiloon mooy entretien bi ñu amaloon ak uh, Mouhamed Diaw bokkoon ci ñu doon wax détenu politique mm. jàppee woon ko ci benn manifestation bu amoon le premier juin bi ñu weesu jox leen dig daje ci yeneen i jotaay jaajëf